alors. xam naa amewul kenn man waaw. suma benn léegi mu ne suma jëkk na. da doon sëy amuloo doom. kan kan wax ne sa jëkkër na la fase doon rek xajuma soxna def na lu bon hmm. eh, léegoo léegi loolu benn beneen feebar la ci suñ biir société xam nga doom yàlla koy maye hmm, hmm. léegoo léeg nga sëy nit lu yàgg du am doom ñu ne na la fase xaj eh, ma soxna xam nga bunti fase bunt bu doy waar la jëkkër su ko neexee mën naa génn ci say ci ris any reason waaye eh, charia du ci kontaan gën a ko noonu waaye dagan na ok su fekkoon yaay ji moo ko waxoon ne ko fase ko itam eh, duñ wax ne su ko fasee daganut déedéet waaye ak as warang ca parce que jigéen su fekkee da nga ko takk yàlla dogal duy gis doom charia lim séntu mooy danga koy muñal waaw parce que tegut ko boppam ab nattu la boo xam ne yàllaa ko ko teg nga muñal ko denc ko ca loola naxanteeg moom wax dëgg yàlla da nga ko war a yërëm parce que nit ku feebar la nit ku wàññeeku la eh, nga war ko dimbale pour doom am léegoo léegi ñàkk doom gi sax du doon ci du doon ci ndaw si léegoo léegi dafay doon ci góor gi waaye léegi ñun ñàkk doom forcé rek jigéen ji rek lañ koy tuumaal waaw su ko defee yooyu ay mm. feebar la yuy xew ci biir société bismillah fa dem waaw xam nga affaire ngoro yi mhm. léegi-léeg naxaate yu bari daf ci dee am mhm. ndaw si sax mën na laa nopp nga nopp ko ngeen bëggante mhm. di jëflante ngay def lu ne nekke moom dig nañ ko benn waay bu ne Amérique wala Angleterre waaw yow at yii yëpp waaye da nga ko féevoo nag yow parce que da nga ko féevoo da nga jegeñ sol ci lu rafet waaw yow la dàll yu rafet ah, yaa parce que da nga eh, yow itam soo amee sa programme moom ngay ànd di demono waaw loolu xew naa ñu ñëw indil ñu ko ba tàyyi waaw ñu xëy benn bés rek may ko kenn ñu ne dañ koy may ñëw diw sang ko doomi ñi jaayam la waaw waaw ah naa bisimilah bu waaw. bisimilah. Ah, dama bëggoon ngeen waxtaan si yàlla comme léegi leen gis jigéen yoo xam ne dañu leen sëy seen yaay topp dem foofu doo foofu te nekk ne da leen ci man waaw man de dégguma ci ci dara waaw xam naa daal lu mu doon tàmbali la te jeexagut xaj ma soxna xam nga problème mu sëy moom soo ko tàmbalee. Hmm. Eh, duy jeex ndax. mooy issue bi gën a populaire. waaw nit ñi nit ñi dañ koy dund. Hmm. Eh, problème la boo xam ne fi ne nii ñëpp a koy dund. Hmm. comme li nga junj léegi dama ko ci suma programme bi passé dama doon wax ne. su ma doon takkaat fi mu ne nii. beneen jabar. Eh, damay tukki. su ma demee ba biti. yónnee ñu tak ñu may ma. képp koo xam ne fii bi nga toogee fii man soo ko utoon mu bañ. ngir jàppul la ne classe nga war nga koo mën a am. waaw te su ma demee ci biti rek. danaa ko mën a am. parce que ku nekk ci biti moom mën naa am ku ne. waaw defe naa am na ku nekk ci laaj bi bisimilah. waaw. so ñu dem ba ci biir daal may ma ko pour hmm. am a may daal. ne lu tax duñ la ko may. waxuñ ma benn raison. waxuñ waaw ñoom xam ne bu baax. waaw. waaw moom daal. moom daal xaj euh, ma soxna ah li may li may digal ndaw yi léegi hmm. mooy wolof dafay wax ne euh, euh, kuñ muus du jënd jaxat ci pax hmm. Hmm. jën wu nekk ci géej bu ko bu ko nangoo jënd maanaam waxuma ne duma bugg ndaw si duma ko labat waaye def ci loo xam ne buñ ma ko mayut ma ricc ko bul ko nangu waaw ah, bul ci nangoo def loo xam ne suñ la ko mayut mu réccu ko féeg wóorul la ne dañ la koy may mm, mm, su la wóoree ne dañ la koy may sa jabar la mm. loo bisimilah allo bisimilah am mag la na ko fase da lislaam dagal na tam jigéen ak góor ngay sëy ñu ne jigéen bi moo mag góor bi mag waaw ah déedéet jërëjëf jërëjëf waaw xaj ma soxna boobit beneen problème la xam nga laaj yi ñoo ñuy génneexal problème waaw eh, liñ bëgg a tontu soxna si mooy sëy mag amu ci amu ci palaas hmm. age amu ci ruum hmm, hmm, eh, pour rek ma rifaa ko ci sang bi sang bi Moustapha salaa sallam eh, ba muy sëy Khadija la ko Khadija magee woon. Mm. defu foogu ma ne léegi kenn kenn dana koy def. 15 years 15 years la Khadija magee yonent bi sax salaam te sëy nañu. Mm-hmm. waaye fi ne dangay gis même jigéen ñi sax da ngay dégg ku naan moom du sëy koo xam ne eh, moo ko mag ma du sëy góor goo xam ne góor gi ko féetee. Mm. féetee xaleel da ñu bëri dañ koy dañ koy bañ. Mm-hmm. Eh, loolu nag xëy na tes la. Mm. waaye du diine. du diine waaw du diine maanaam kum neex nag sañ nga ne. bugguma see xaleel wala bugguma see loolu diine yoonam nekku ci waaw amma nag buñ ko buñ ko wékk ci diine te ku ko def sabab itam sabab bu ñàkk fayda la ñu bàyyi xel loolu xaj ma soon defe naa ñu ñuy junj ne waxtu bi daanaka jeex na xanaa rek bon ñu delloo la microphone bi eh, nga tàggatoo bokk yi xam nga li nga mujj a wax ne tis mhm. cafka mhm. nit ñi seen cafka yi li ñuy duy benn mhm. Eh, maa ngi doon seetaan benn programme. Mhm. ci télé réew yi ñu wër. Mhm. Eh, xale yi di kool. Mhm. di wax ci néegu sëy comme ni ñuy def ni tey. ñoom sax amul dante boo xam ne islam la ñoom dañoo tëb rek di. kool rek di wax mm. eh, waaye xale yu bëri dañu wax ne. ñoom sax bëgguñu takk jànq. ñoom ko am expérience lañ bëgg. xale yu góor yu ndaw ay 18 20 25 years mm-hmm. ne ñoom bëgguñ xaleel mm-hmm. ku am expérience lay bëgg nga gis ne mbir mi doo doo xam tes la tes la ah. kenn ku ne ne am na ñoo xam ne ñi xale yoo xam ne mag rek lañ bëgg mm-hmm. am na mag ñoo xam ne tam xale rek lañ bëgg am na ñoo xam ne tam seen morom rek lañ bëgg ndax fi may war a dem ci club bi ca diine ba ca loñ ba suma morom laa war a ànd ak so mbir mi daal tes eh, la te yoonu diine nekku ci te yoonu diine nekku ba pare itam sëy itam comme ni nga wax rek éej amu ci yónent daf ne man istataa minkumul baa man man la waaw xale bi mun naa man mag mu ne am na mag moo xam ne yaa ngi koy xeeb fekk mun na mhm. mun na bu baax a baax mhm. kon dafa mel ni comme waxtu wi jeex na ñu tëj ko fii ba beneen yoon mbiru sëy moom duy jeex waaw programme bu réy a réy la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu